Sénégal moo ñu fekk si tey jii fas yéene doon gànnu Déclic ci télévision Futur Média ci mardi bi mu di monsieur Habib Sy monsieur le ministre ngi lay nuyu bëgg ci la nga ñu fekk si euh, di la sant bu baax it euh, maa ngi leen di fay def naa maa ngi leen ëpp mbégte. ndaxte yéen ñëpp euh, même bu fekkee ne ñu ngi soog a toog émission maa ngi leen di seetaan. Euh, di apprécier liggéey bi nga xam ne yéen a koy def ci TFM kon nag euh, yaakaar naa ne tey suñu daje bi dana am njëriñ bu rëy ci Sénégal. man nañu sóobu ci waxtaan wi ndax ponk yu ñuy xaar bari na actualité bi bon bala ñuy sori rek sànq am na ponk bu ñu waxtaanee muy jafe-jafe yam ci croissant euh, commission bi. Mm-hmm. ak li ñu ciy dégg ak fi mu mujj ñu bëggoon ci am sa xalaat tuuti rek laata ñuy dugg nag ci waxtaan bi. maa leen ci doon déglu surtout déglu naa li li Pape Djibril wax. man dama jàpp ne état da ca war a dugal loxoom parce que bokk naa ñi jàpp ne état Sénégal du état laïque ci kayit yi lañ ko bind mais boo xoolee li ñuy wax lay laïcité fa mu jógee ci Europe ba ñëw fii dañoo bokkut mboor ak ñun boo gisee li fexe woon ci fan yi ak euh, taxawaay bi nga xam ne kilifa diine yi taxaw nañ ko rawatina xalif général des Maurice Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér nga xam ne Sénégal du état laïque bind naa ko wax naa ko défendre na ko bu dul benn du ñaar léegi li mu war a def comme moo jabootee ñëpp te du état laïque lii daf ci du war a dugal loxoom waxtaan ak kilifa diine yi ñi mu wax sànq am na loo xam ne Serigne Sidi Mokhtar Mbacké doxoon na ko ak Abdoul Aziz Sy euh, Al Amine loolu état da ko waroon a këf jël ko muy yëfam mu defar ko man dem naa sax ba xëy naa danañ ci ñëwaat ci waxtaan bi ci sama projet de société ma ne Sénégal dafa war a am haut conseil religieux auprès du président de la République haut conseil religieux auprès du président de la République mais yooyu dañ ci ñëwaat ci kanam incha allah Euh, Macoumba waaw léegi monsieur le ministre wàllu emploi lañ bëggoon a tàmbale ndax euh, fi mu ne nii mooy waxtaan wi gën a ñor waa réew mi mhm. gis nañ président de la république dellusiwaat ci bu baax a baax discours am 8 mars dellusiwaat ci itam ci 3 avril mhm. wax ni léegi dina gën a yokk financement yi nga xam ni moom la ko jagleeloon dem ba wàllu ba war a yegg ci 400 milliards mhm. dégg nga itam modalité pratique yi nga xam ne wax nañu foofu lañ koy jaarale pôle emploi yi guichet unique yi dans tous les départements est-ce que théoriquement ni mu ébauché nii jàpp nga ni mu ngi ci yoon pour régler problème bi. Euh, loolu jàngal bi ma ci am d'abord xam nga guichet unique man ci man la jóge guichet unique départemental mu ngi sama projet de société depuis 2017 laa ko laa ko publié def naa te ngeen ci bët. mais bii nga xamee ne wax na loolu man dama ne ah. président day xëj na ñi ngi defati ñi ngi defati musiba de ndaxte dafa am lu ko jiitu problème emploi Sénégal bu fekkee ne yow bañ la falee ba léegi juróom-ñeenti at yaa ngi dugal xaalis te nga jàpp ne la ngay dugal àggut fa mu war a àgg ndaw yi di la ko wax ngay dégg bala ngay fabat lu tolloog ci ñeenti téeméeri milliards di ko ci dugal na nga taxawaat seet sa bopp nag évaluer xam kat sa xaalis boobu nga def ay ANPEJ la xaw ma et cetera DER et cetera fan la dugg lu tax nga def ay lu toll ak ay milliards yu tollu noonu te xëy mi ndaw ñi amuñ ci satisfaction kooku mooy lu njëkk beneen bi. donc kon deful évaluation xaw ma day woote conseil euh, ko ñu ko sax. présidentiel présidentiel. mais loolu du mooy régler problème parce que foofu waxtaanu une de temps la deux de temps la. ma jàpp ne euh, ci li ma xam man ak sama expérience xaalis boobu sax mënoon na ko cee bañ a def noonu dafa am lu ko jiitu boo xayma li nga xam ne mooy euh, par exemple euh, li ñuy wax entreprise yu ndaw yi nga xam ne moom tout tànk mën nañ ko tuddee noonu petite et moyenne entreprise ci Sénégal ñëpp nangu nañ ne li nga xam ne mooy koom-koomu Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ba ja juróom benn juróom-ñeent fukk ak ñett ñoom la te boo seetloo réew yi nga xam ne jëm nañu kanam lu mel ne Maroc lu mel ne Île Maurice lu tax ñu dem parce que la ñuy tëgg ci koom-koom li ci ëpp petite et moyenne entreprise ñoom ñoo koy def dem nañ ba téeméer boo jël par exemple Île Maurice juróom-ñett fukk yi ñoom ñoo ko indi ci koom-koom dem nañ ba juróom-ñaar fukk ñoom ñoo ko indi ci koom Sénégal ñi ngi toll ci fanweer ak juróom li ko waral mooy boo jëlee par exemple li ñuy wax commande publique maanaam président moo fi waxoon ne léegi bu ñu defar ay meuble ak yooyu danañ ko jox ñi nga xam ne ñooy menuisier Sénégal mais li mu njëkk a def xam nga lan la. li nga xam ne bureau bureau réunion bu ndaw bi nekk présidence nga xam ne menuisier Sénégal moo ko defaroon bu mu ñëwee daf koo dindi def ci mobilier étranger. dégg naa dégg naa ñu ne am na bureau boo xam ni ab yoo ko defar de. même bi ma wax bi ma wax bi ma wax dama koo xam ndax ci dool ma boo jëlee. léegi bi nekk sa salle bi Bruno Diatta. non non non ci ci kaw ci ci bureau boobu bureau personnel mm-hmm. léegi commande publique bi. ñeneen dana mat cinq cent milliards maanaam téeméeri milliards na ko foofu léegi léegi dana mat huit cent milliards ñi nga xam ne ñooy entreprise yu ndaw yi xam nga lu ñu ci am vingt cinq pour cent cinquante milliards rek lañ ci am xam nga li waral loolu lépp mooy Sénégal pour que entreprise yu ndaw yi mën a dem jóg ci li nga xam ne mooy financement dafa métti koo xam ne kii yow da ngay utiliser bawal bawal nga di utiliser sa doom sa rak sa jarbaat ñu ne la bala ñu lee la bala nga indi état financier mënu ko c'est pas possible état defal li nga xam ne mooy BNDE tuddee ko banque nationale de développement économique je pense mais xaalis bi nga xam ne ñi ngi koy utiliser pour di financer entreprise yi dugaluñ ko BNDE la ci ëpp ñu ngi ko dugal ay bande commerciale yoo xam ne Maroc ñoo ko moom France ñoo ko moom ak ñeneen ñoo ko moom te boo jëlee réglementation bancaire fii Sénégal amul fenn fu ñu bind ne réglementation bancaire bi am na benn moo développement amul donc li nga xam ne état defar na ko muy banque nationale de développement BNDE ñu ne day financer développement moom ak banque commerciale yi ñoo yem benn kiif buri ko donc mënul financer le développement ni mu ko bëggee mënul financer même les collectivités locales bu fekkee ne yooyu yëpp am na mooy la xam ne dala gàng gàllankoor ba nga xam ne li nga war a def ci xëy mi mënuloo ko bala ngay fabar nag lu toll ci ñeenti téeméeri milliards di ko ca dugal. mun na a nasaxaay na nga toog nga xool li ngay def loolu yëpp pour nga régler ko boo ko régler ba pare nag. Mhm. ñu soog a jublu ci yooyu. Mhm. monsieur le ministre parce que nga nga baal ma li ngay wax ni dafa am solo trop mais tey jii la recette parce que tey problème yi ñun ñëpp constaté nañ ko. Mhm. boo xoolee plateau yëpp problème yi rek la ñuy waxtaanee.